xaar le président Macky Sall c'est pas naan nañu dem ci ci ba ñi mhm. ko doon xaar mooy mënuma déposé je le dis tout de suite en France le président sortant n'a va jamais saisir le conseil constitutionnel pour naan xoolal ndax mën naa jàllaat ñu ñetteel ba teg troisième barada aux États-Unis c'est pareil. pourquoi mais est-ce que mhm. euh, tax sax far ju dindi limitation bi parce que bu fekkente ne dañuy dem ba bu ñu tegee benn euh, constitution ñu ne non war na am troisième ñi ne warul am troisième wàdd au moins demoon na ba élection mais bii bu fekkente ne aussi dem na élection est-ce que kon limitation des mandats finalement dina amati sens au Sénégal ak du nekk même euh, comme li ñoom Pape Moussa di wax benn. ah. non maanaam euh, le le fait ñu di ko ñu di ko dund di ko di ko indiwaat j'ai j'ai un peu recommencement chaque jour ñuy wax rétro voilà recommencement boo xam ne ñu ci jurisprudence voilà jurisprudence hmm. j'y arrive mais gis nga loolu est-ce que loolu si am man lenn rek laa koy teg mooy la mauvaise euh, foi de ñi nga xam ne ñooy parce que jiitu réew du affaire caaxaan ko hmm. yëf seen suñu devenir suñu sécurité suñu stabilité suñu sécurité juridique yëpp yaa ko yor ma ñëw taxaw ñëpp jeex ak ñëpp dans les yeux ne leen man 2024 pare na ñaar raaka laa mën def fii kenn mënu fi def dara maa ngi gis sax beneen vidéo boo xam tey laa ko gis mu ngi toog ak sëñ Sidi Mokhtar feu sëñ Sidi Mokhtar mm-hmm. di ko wax la même chose parce que lu fi xewoon bi ñi ñi dee fi il le dit mm-hmm. c'est ça qu'il faut arrêter mais tey bu fekkee ni moom dafa dem bii di bëgg a déposer je parle de téléchargement parce qu'il n'a pas encore dit il dépose bu fekkee dañu dem par les actes posés bi mu nar ko def c'est un éternel recommencement et vaut mieux enlever la limitation. Mhm. mais maître ñi ñu xam ko à l'avance. Mhm. et puis ñu vivre avec ça. mais aujourd'hui est-ce que du doon euh, un ça va être un combat boo xam ne politique la parce que comme ni nga waxee léegi si ça va au niveau du conseil constitutionnel ça va passer comme lettre à la poste. Mhm. alors je pense que euh, tey li wax c'est c'est d'apporter à cela un combat politique et bu ñu xoolee déjà les gars de Benno et tout ça loolu la ñu commencé ci terrain bi fi mu nekk nii. ñoom ak opposition bi yaa benn forcing boo xamante ni ku ci nekk da ngay jéem a imposer li nga xamante ni également moom moo lay euh, pousser ba ci ñoom ñu invalider troisième euh, mandat bi muy wax mais ñoom également du coté du pouvoir ñu imposer loolu c'est un combat politique. c'est un combat. qui mm. doit être mené effectivement ku nekk nag ak seen manière de combattre euh, mm. le troisième mandat. am ñoo xam dañu defe ni bon il faut faire tomber les institutions dès maintenant dans moom rapport de force la. non mais sëñ Moussa dégg nga loolu. waaw am am na il faut arrêter ça man je suis pas d' accord. jusqu'au 25 février même la jusqu'à la passation le président Macky Sall est le président du Sénégal suñ fi daanalee les institutions. il y aura pas d' élection. l'armée va prendre le pouvoir. moo xam kañ lay ñëw neen damay organiser waat pouvoir te bu leen ñam loolu la l'armée euh, mhm. pouvoir ils l'ont dit mais ne nous mettez pas dans vos histoires là Diamé mhm. plus de vingt ans yëg na ko mooy le communiqué qui est sorti et je ne comprends pas que une certaine opposition di ci dugal armée dans leur communiqué mhm. mais man dama ko mosul gis déjà ah bu dee wax na ñoom ñoom nag li ñu waxoon gëmoo ko il faut qu'ils arrêtent de jouer au cinéma aussi quoi li ñu wax gëmoo ko il faut qu'on arrête de jouer avec le feu. mais mais ñoom mën nañ xam ne am na ñoo xam ne xamuñu ce que c'est qu'un pays à terre. ils savent pas parce que mosuñu dal. mais mais mais maître fi ñu toll ci troisième mandat. wax nga yaa dix ans ak président Abdoulaye Wade gis nga li ñu jural wax nga ko léegi. tudd mm-hmm. ay nit yu ñàkk seen bakkan. ñu gis ci sous-région bu fu mel ni Mali fu mel ni Guinée. gis nañu li fa xew même d'Ivoire ce qui s'est passé d'Ivoire si est duñu xalaat lu ni mel mën a euh, ak esprit sénégalais yi révolte bi ñu nekkee nii. est-ce que mënul am fii ci Sénégal bu ñu. loolu moo tax ma ne attention attention. Mhm. gis nga kilifa. ak surtout xamoon naa ko euh, jëloon ay mesures à l'avance moo ko gën. Mhm. man j'ai de l'expérience dans ce domaine parce que ci laa bokkoon di xeex en 2012 ba lii fi am yëpp am. Mhm. nous avons quand même essayé à moment donné de d'arrêter sax nous-mêmes. dem defi campagne dem dem aux élections tey am na ñoo xam ne ils ne savent pas ou bien ils sont tellement assoiffés par dem toog jël euh, jël pouvoir bi qu'il faut pousser trois jours quatre jours cinq jours six jours de manifestation partout au Sénégal pour que lépp daan il ne mm-hmm. tiendra pas je c'est de la folie c'est de la folie aujourd'hui nous sommes à dix mois des élections nga def loolu l'armée le pouvoir il n'y a plus d'élections on attendra deux ans vous allez comprendre ou dans quatre ans et puis comme ni nga ko waxee Thioro mhm. Mhm. mais ils ont vu ce qui s'est passé en Guinée ak yooyu mhm. ils ont vu ce qui s'est passé avec Gbagbo et machin les histoires d'élection ak lii ak yooyu même euh, avec euh, le président actuel de la Côte d'Ivoire le Mali aujourd'hui ñun aujourd'hui nous sommes un benn oasis de paix mais lan ngay proposer yow en tant que opposant boo xam ne bëggoo ñoom côté bi ñu jëlee lan ngay proposer pour président ab euh, Macky Sall bañ ñoo dundloo li président Abdoulaye Wade defoon même su fekkee dunduñu lu ne mel sax aussi euh, mu xam ñu xam ne képp ku fi toogaat dootoo jéem li ñu ñoom ñaar li ñu jéem. gis nga tey bu ñu toogee ba conseil constitutionnel di jël dossier bi. Mm. di naan euh, il est di valider sa candidature. Mmh. si nous sommes des hommes d'État je dis si on n'y peut rien. Mm. soo ko jéemee naan conseil constitutionnel rendre décision. on ne respecte pas ça va faire naître une guerre civile dans ce pays je pèse mes mots yow bëgg nga aussi boo toogee sous un autre angle par exemple bu nekk président de la république bëggoo sur un débat donné la juridiction suprême jël décision ñun duñ ko respecte gis nga en droit ñun ñii nous sommes des auxiliaires de justice ah. da ngay dugg ci audience xam ne ak quatre-vingt-quinze pour cent tu vas gagner ton procès tu as raison sur le fond sur beaucoup de choses ñëw ne la benn nit ne la man dama jënd sama immeuble loué ko une société ça fait dix ans fayu loyer huissier bi ñëw def acte d'assignation yeeg yëpp le locataire nee effectivement je ne l'ai pas payé là-bas c'est la grand-mère des preuves donc c'est établi mm-hmm. Mm-hmm. donc yow booy ñëw totaliser lépp li ñu war a fay ñëw tasante le juge xam nga yaa ngi am espoir ak sa client effectivement il a avoué qu'il ne doit monsieur le juge dañu bëgg rek lu ko entériner mm. mais nga ñëw nga tasanteeg benn confrère en face mu ne la moitié bi yëpp ça va à l'eau mm. nga ne ko pourquoi votre client a accepté mun la bon y a prescription mm-hmm. voilà mm. dalal dalal benn galgal mais da ngay génn accepter que tu as perdu beaucoup de choses ñàkk procès bi sur ce côté la côté boobu mais doo fa naan man monsieur le président de sànni loxo dafay effet de manche si tu n'es pas d'accord la lay wax si vous n'êtes pas d'accord maître vous faites appel ah. conseil constitutionnel amul appel c'est notre droit mm-hmm. qu'il faut modifier après par la suite donc on doit accepter aller aux urnes mais aller aux urnes ak li ñu fi def en amont yëpp ñuy jàppante reyante ba conseil constitutionnel jël c'est des pertes yoo xam ne qu'on o éviter 2012 le conseil constitutionnel a pris une décision Nous, nous étions là, nous avons respecté cette décision, nous sommes partis aux urnes et loolu laay ñaan bañ a amaat nag boo fa ñu ñu waxtaan nag sur les hommes politiques et les politiciens. mais est-ce que bu ñu ci génnewee conseil constitutionnel. wax nga ko yenn ci ay vidéo yi xam ne day jot a génn mu dem seet ci ay kilifa diine. Euh, ñaaw na ci gis-gis la nga ca doon wax ñu gis ngay doxalee naka sudul noonu est-ce que du yenn loolu mënuñ ko tuddee rek xotti woor ma. ci institution yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ndax fi mu ne ni bu ñu demee ba ñeme naan euh, justice tëddeewul njaaxaanaay kumba am ndey ak kumba amul ndey ci weneen wàll bi euh, sénégalais sax boo leen nee conseil euh, constitutionnel dañu naan maanaam joxatuñu leen cër mm-hmm. est-ce que du ci ñàkk en tant que nit ba nga xam ne da nga waxoon ni duma def lii nga wëlbatikuwaat di jël li nga xam ne ki fi nekkoon loolu ngeen ko dàqee nga ni waat yow mi loolu nga bëgg a def. am na tur wax waxeet la. waaw. Mhm. teggi wax maanaam euh, wax waxeet euh, euh, fas yéene woon def lii ki fi nekkoon nga dindi ko. wax ci jëlee ci ay kàdd yoo xam ne yoo xam ne teg nañ ko ci ndondam dem nañu sax ba Ablaye Wade dañu yëkkati woon benn seex kay naan góor gi dee na lu ne ñu wax ko te fi mu ne nii loolu ku ko wax ñu jàpp la tëj yenn ci ay vidéo ya nga waxoon génnaat boo ci waxee ñu tëj la. est-ce que du loolu sax euh, jëfin yooyu wala doxalin boobu moo waral ñu yëpp yenn ci euh, yenn ci ay euh, ci justice bi wala ci yenn ci ay ay ay homme ñi nga xam ne ay homme d'état lañu ay général lañu ay homme de tenue lañ yenn ci ay institutions yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal fi mu ne nii ñu ngi leen di ŋàññi est-ce que du kaddu yooyu nga xam ne dafa waroo ak ay jëfam moo waral lii loolu li am. ah kaddu de dañ ko war a sàmm defe naa ni ko war mal aussi mais su fekkee ne aussi suñu politiciens yi lu ñu wax tey génn ci suba. surtout nar déstabiliser un pays il faut que loolu ñu jóg ci toog ci waxtaan ci mais ce sera très difficile mm. fekkee lii lii bu jàlle je mets lii bu jàllee mooy si ça passe je mets aussi au conditionnel mm. parce que man li may xaar ci président Macky Sall mooy mu ñëw wut candidat am teg ko fi est-ce que c'est ah, xam non maa ne ne mën na fee samp ku ko gañeel le 25 février 2024 euh, vous savez lui lu mu nekk dans sa tête moi je ne suis pas là-bas mais l'essentiel mooy su ko defee rien ne l'empêche de choisir un candidat génn ne leen li ma leen waxoon ci laa nekk wax ji bëri na ci réew mi

non non ma ne boo amoon conseil ba jox euh, conseil constitutionnel bi nga xamante ne tey euh, euh, mu ngi ne ci ñooñu lay laaj ba xam am na droit parce que ñoo war a tey valider li nga xamante moom mooy troisième candidature am ñooñu boo amoon conseil boo leen a jox lan ñoom ñoom rek la ñuy xaar. parce que tey la ñuy xaar mais je je reste j'ai donné la position j'ai dit je reste pessimiste que duñ ko valider. Mm. ils l'ont ils vont le savez le conseil constitutionnel seen. yow déjà vous savez ah, ah, ah, dañ koy valider ci neex leen. wala dañ koy valider ci teg ko ci yoon. di teg si yoon ban teg lañ ko valider. lañ ko valider ñoom bokkul wala wala ma ne ñu teg ci yoon. valider nañ ko